mbokki talibé yi no ngi len di nuyu di len ziaré di len ñaanal jamm te diko sakku ci yeen ci ñaan suñu borom defal nu jamm ñuy ñaan itam suñu borom mi moom jàmm bajal turu jamu tuddé ko bopum te mooy asalaam ñoo ngi kay ñaan mu def ci rew mi jamm dama tu nak ñi jaalé mbokki rew mi yépp ñi nga xamné ñàkk nañu seeni mbokk ci xew-xew yi jàll xewoon ci réew mi muy xew-xew yoo xam ne xew-xew yu ñaaw la ndax ay doomi Sénégal ñoo doon rayante seen biir muy loo xam ne yaakaaruñ woon ne xew ci réew mi mu doon loo xam ne xaaruñu ko woon itam ci biir Sénégal ndax ñaari doomi sénégalais ñooy taxaw di jàmmaarloo ngir ay mbir yu ñak fayda te itam ñu ngay ki tax ñu def itam wala ki tax ñuy dug di jamaro di xex muy ngor sidi di Sall da ko jëru pour man ndax ko xam duñ ku bax duñ ku jup duñ ko xam na ay waxam luy saxla kooku warul jar yenn yi lima bëggoon daal sénégalais yi ñu xamanté seen biir ta xam ay citoyen lañ xam ne police yi ñuy xeexal ñoo ñoom ñooyam leen wutale mooy ab garaat police yi itam ñu yërëm xale yi ta xam ne amuñ doole nit ki boo boo amee doole da nga yërëm doole réew mi nag fi ne ñàkk na jàmm wax dëgg yàlla nañu nañu nañu ñaan jàmm ci mi ku mën na ñaan ku mën na yor kurus te ñaan jàmm ci mi te xam ne aye du yem ci bopp ko tëjjee li ñu a jóg dëgg nag du loolu mooy sunu émission bi di diine ak jamono ki ci ànd ak yéen di seen mbokk Serigne Fallou Gaye diine ak jamono nag boo xoolee tur wi da koy wuyu jamono ku ne xam ne nag fi ne mi ngi toll ci tabaski hmm, ci ay fan yu néew incha allah dañuy jublu tabaski kon sunu dem day jublu ci day wax ci tabaski tabaski mbokk doon loo xam ne sunu borom daf koo farataal ci bépp jullit képp koo xam ne yaa ngi wax ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah mooy képp koo xam ne seede nga ne yàlla amul benn buur moom seede nga ne muhammad yàlla moo ko yónni tabaski war na ci yow ci boo ko manee ci boo ko manee ci wàllu koom-koom bi ci walu xarak yi demé non ak la ci war ta tabaski nak ndax dañu xey xey rek diko def dedet tabaski dafa am lu ko sabab dafa am lu waral ñuy tabaski dafa am fu bayiko li waral tabaski nak dafa amoon ben jaamu suñu borom jaamu yalla bo xamne mi ngi tuddu sayyidina Ibrahim alayhi salam, nekkoon yonante yalla nekk itam jaamu suñu borom Seydina Ibrahima alayhi salaam nekk ki nga xam ne alxuraan daf koo tagg wax ne wattaxadallaahu Ibrahima xalila wax ne yàlla day jël na Ibrahim muy ab xaritam waaye ndax tagg googu yàlla dafa xëy xëy tagg ko déedéet tagg gi yàlla def koo nattu ci anam yu ne xool xol bi ci anam yu ne dem ba xam ne jaxasewut ak yàlla dara cib xolam moo tax suñu borom ne Ibrahim kat léegi sama xarit la. ibrahim moom nag moo waral ñu tabaski tey daañu leen leeral bu soobee yàlla di tax ñu wax leen ne ibrahim moo waral ñu tabaski seydina ibrahim alayhi salaam ginnaaw bi ko suñ boroom musalee ci sawara seydina ibrahim yàlla def ko yónni woon mu ñëw di woote ak yonante mu woote la ko ca fekk fekk ko ca ba dugal ko ci biir sawara alxuraan wàcc naan xul naa yaa naaru kuuni bardan wa salaaman ala ibrahim ku ñuy wax Namruus ibnu Kanaan jamono bi Seydina Ibrahim di woote moom la fekkoon muy buur boo xam ne buur bu beew la woon jàpp Ibrahim dugal ko ci biir sawara ne daf koy lakk yàlla wax ak sawara si ne ko maa ngi lay wax yow sawara yow sama sawara si nekkal jàmm ak sedd manam sedd bo xam day rax jàmm ci kaw Ibrahim nga ya xam sa sawara si lëkku ko kon ginna bi sunu borom Ibrahim ci wara sozu Ibrahim da wax suñu borom ne ko yow sunu borom man day dama bëgg dem fo xamne fuma la mëna a jaamoo lay doon fu fo xamne ne fa mëna bëgg tuxu dem fo xamne ne fa mëna manam gaday kon liñ wax gaday fi ne Ibrahim moko ñëk def gadaay nak moy lan ah, hajiru man man man man hajara man allah wa rasuluhu manam gadaay moy gadaay li yalla tere ak li yéen tere kon li wax gadaay Ibrahim moo ko def ñun nak ci kiñ ko ñëk xamé moy sallallahu alaihi wa mu yoonte bi wa Ibrahim mu ñëk gadaay muy joge ci dëkk dem ci dëkk ngir jaamu fa yalla Ibrahim bi bi gadaay mi ngi andak doomu ndeyam di ñuy wax Seydina Lut alayhi salaatu wasalaam Seydina Lut mook Ibrahim ay doomu ndey lañ maanaam seen ñaari waajuru jigéen ñi bokk lépp Seydina Lut moomu yonente la moom tamit Seydina Lut moomu ci jamonoom te la ñu gisee góor jigéen maanaam góor ak góor di jaxasoo di sëy ci jamonoom lañ ko njëkk a gisee alxuraan sax mi koy indi boo demee ca suratul xijri mana la wajah ahlul madinah yasabsirun khala inna haula yadahi fala tafdahun wa taqullaha wa la tahzun kon ci jamono sayyidina lut alayhi salam la ñëk gisee góor ak góor di ibrahim lut moom la àndaloon ak ku saarata saarata di soxna ibrahim mamit ti ci gàddaay gi la kon ibrahim mo ànd ak saarata Euh, bi mu gàddaayee ba dem ci suuf soo xam ne suuf su sell la ngir jaamu fa suñu borom la wax suñu borom ne ko yow suñu borom maa ngi lay ñaan nga may ma doom ju baax barek Ibrahim mooy wax suñu borom ne ko suñu borom maa ngi lay ñaan ma doom ju baax rabbi habli min as-salihin suñu borom daal di koy bégal daal di koy may ñaan gi ko ñaan daal di koy bégale ci nguur soo xam ne nguur su lewet la moom la alxuraan di wax fa basharnaahu bi gulaamin xalim su borom daal di koy si nguur soo xam ne nguur su lewet la nguur soosu nag wute am na ci ci borom xam-xam yi am na ñu wax ne mooy Ishaq am ñu wax ne mooy Ismail waaye la gën a wér mooy la ñu gën a saxal mooy Ismail mooy doom jooju mu su borom mayoon ko di alxuraan di wax mooy Ismail la Ismail Ismail la Ibrahim bëggoon ko lool ndax Ibrahim dafa toog ay ati at yoo xam ne amul doom Ibrahim dem na ba nekk mag amul doom. ci bassam borom nak, dom nak xam nga nit bu toogee yag amul dom fimne bu amé dom du ko gëmé da koy bëgg ibrahim nak lool dalan ko ci dom joju ndaysan mu bëggon ko lool ban xey di and ak mom di dox léeg-léeg ñu and ci kaw montagne yi léeg-léegi mu bëgg ko lool ndaysan yalla nak ne xaaral comme Ibrahim mi day wote wone mën la bëgg day wote wone ab yonenté la mako ko ma ko lu ne mu ngi koy wax tay nak dinaa xam ba xam li muy wax dëgg la ci moom war a déet daal di koy feeñu ci ay nelaw daal di koy géntuloo bi maanaa ne ko ya Ibrahim maa ngi lay digal nga rendi sa doom ji di Ismaïl aw mbokk yi dafa doy waar doom joo xam ne ndeysaan bëgg nga ko bëggeel goo xam ne amul dayo nga xëy xëy rek ñu ne la rendeel sa doom ji loolu lu doy waar la xëy xëy rek ñu ne la rendeel sa doom ji te amul explication yalla jox ko ben explication da xere ne ko ray rendi ko xam nga ray ko sax da xawa a woyof mën naa ne ko sa dom ji kat ko nga xol noo ko reyee rendi si mi teural nit gel paaka dem ba dëpp pour rendi lolou dafa doy war nga def ko sa dom bu ma kenen sax waye sa dom rek nga def ko ko loolu dafa dafa doy war yalla xëy ne ko Ismaël mi di sa dom rendi ko ta jox ko ben explication léegi nak Ibrahim mo mo Ismaël. nangu na li ko suñu borom wax ndax yonante la te itam li muy wootal dëgg la ci moom waaye problème fan la nekk mooy Ismaayil ndax dina nangu baayam di ko rey ndax Ismaayil dina nangu baayam di ko tëral di ko rendi ndax waaye li yéeme mooy Ibrahim bi mu ñëwee ci Ismaayil ndeysaan ñu doxantu ba yàgg mu ne ko yow Ismaayil yaa yaa bunayya inni ara fil manaami anni asbaxuka fanzur maza tara ne ko Ismaayil sama doom man day damaa gis ay nelaw ñu digal ma ma rendi la ne ko luy sa xalaat waaye Ismaayil ca ga Ismaayil ca teey ga ca mat ka ndeysaan nga xam ne ab yonente dañ koy teel waajal booba gone ko ndaw la waaye bi ko bàyyam waxee loolu li mu ko tontu ne ko yow sama baay yaa abati ifaal maa tu'mar defal li la suñu borom digal satajiduni insha allahu mina saabiriin ne ko insha allah dinaa muñ waaye mbokk yi xoolal loolu tey buñ ko bu doon ci jamonoy tey nga xëy xëy rek sa waajur ne yàlla dafa ne ma redd la ko sa waajur njëkk nga xeex ak loolu moom sikki sàkk amu ci bu doon tey bii nga xëy sa waajur ne la sëñ bi may kaay ba nga ñëw mu ne la ah man de dama gént suñu borom ne ma ma redd la am naa wax ja fa lay yam ndax da ngeen rayante foofu noonu da ngeen xeex ndax du kenn du nangu sa waajur di la rend waaye bokkuñ mooy mooy jëmm yi bokkul ndax yoonte dañ koy teel defar defar ndeysaan Ismaayil ne ko yow sama baay defal li la suñu borom digal Ibrahim ndaysan ca fonk ndigalu sun borom ga ca julite ga mu teural Ismaayil ba mu tëdd jël paaka téye ci ndox téye ci baat bi ni ngi def xarum tabaski fas yéene rendi lu daw yaram mbokk yi sa doom ki nga xam ne ko jur ki nga xam ne toog ngay at amoo ko nga xëy xeer sun borom may la ko mi mbégte mu rëy ci yow nga xëy xëy ñu la rendi ko nga war koo rendi lu daw yaram waaye gëm yàlla ak bëgg yàlla bu xasee ba nekk ci yow daanaka yooyu doo ko du doon problème ci yow ndeysaan ak lu lu metti metti Ibrahim tëral Ismaël fa seeni koo rendi ndax ko suñu borom digal waaye li doy waar mooy topp ndigal rek moo am solo bi mu tëralee Ismaël fa seeni koo la yéene mooy ni nga ko tëralee rek ci la am xar mu rëy jóge ci kaw asamaan mel na lu wàcc suuf Ibra Jibril indi ko xar mu rëy rëy xar moomu wax nañ ne na nekk na fa ñeent fukki at ñu ko fa yar xar moomu xar moomu itam wax nañ ne kañu wax xaabil te mooy ñaari doomi aadama ya xaabil ak xaabil ñi nga xam ne ñoo rayante woon ñaar ñi nga xam ne ñoo njëkk a ñoo ñoom la rayante ci kaw suuf maanaam xaabil moo rayoon moom moo njëkk a ray nit ci kaw suuf te moo rayoon xaabil moom ñoom ñaar xaabil xar ma mu doon jaamu suñu borom mooy ba natt seen. sen sen sen digënté sen borom ak soxna soosu ndeysaan mu histoire bu gudd bo xam du du laaj temps temps bi day du laaj ñukay koy leerlaat fii beneen lay doon xar moom mu doon jaamu sama borom mu xébil xar mu wax nañ ne mom la mom lañ jox Ibrahim ngir mu ngir mu remplacer ko Ismaël kon Ibrahim bam mu tëralee Ismaël ba fas yéene koo rendi la sama borom remplacer Ismaël akum xar mu reuy xar mu jugee aljana wax nañ ne def na fa ñeent fukki at ñu fa doon yar kon sen borom. li mu dig li mu jubli woon ci mbir yi mooy lan mooy xool ba xam fan la ko Ibrahim toll xool itam ba xam xool fexe dindi xolub doom maanaam xolub bëgg doom ci Ibrahim ndax suñu borom day dafa bëgg dafa bëgg ñu bañ koo jaxaseeg lenn boo ko xasee ba def sa xol bi nga bañ cee dugalal leneen su borom ne suñu borom ne foog mu dindi xolub bëgg doom ci yont bii di Ibrahim loolu la jublu woon ci natt boobu waye din na ko ndeysaan nak ndax ibrahim nak suñu borom digale la ko la ko non defé ta du ci am ben pression malaika yi mas wala laaj suñu borom ne ko yow yalla dañu lay laaj li nga don def ibrahim ni nga ko digal lo djublu su borom ne len lima ci djublu won moy fexé dindi xolub dom xolub bëgg dom ci mom ngir mu bëgg mu man rek ta bañ man ci boole kenen da na len nak ni ma ko ci mom nak la ko defé la ko la ko defé ci Yaqub ak dom ji muy yusuf ndax yaqub dafa xëy xëy rek gisul yusuf yaqub bëggoon ko lool ndeysaan bëggoon ko lool ba daanaka mbëggeel googu moo waral ak fiiraange dox seen diggante mook doom yi bàyyi mais bañ sàkkal ko pexe mu xëy xëy ko ay ati at at yoo xam ne gisu ko jooy ko ba gumba loolu suñu nee na li ma jubluwoon itam mooy fexe dindi bëgg doom ci moom daan ne waat itam foofu noonu itam laa jëflanteeg Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gën gi mindeef te ñaari sëtam ya mooy Seydina Xasan ak Seydina Xuseynu ndax suñu borom dafa xëy rek daal di yónni jibril ne ko boo demee ci Muhammad ne ko suñu borom nee na sa ñaari sët yi dana la ci natt ndax xasan mii kat dañu koy rey xusan lañu koy rey su xuseen muy itam dañu koy rey ay noonam ñoo koy rey waaye mu yónni ca dal ga ca mat ga mat ga mat la mu doon saan méttiwu ko xam nga li gën a métti mooy natt boo xam ne yaa ngi koy gis yaa ngi koy gis muy ñëw te ak seegul loolu moo daan dal yónante yi natt boo xam ne dañ lay affecté ne la lii dañ la dal te ñëwagut moom la moo daloon yonent bi ci setam ya xoseen na njëkk ñi koy ray yonent bi xamoon na nañ ko ray ba muy dund ak la mu koy bëgg-bëgg Seydina hasan itam non waye lamay metti metti yonent bi musko wone ci kanamam musko wone ci laminam manam maanaam dafa melni ko yëgut ngir lan ngir bëgg suñu borom rek la def bëggul leneen loolu suñu borom ci li itam ci la suñu borom jaar ak si Ahmad Bamba muy tukki bi tukki gisul dom gisul taalibe gisul dara nasaraan yi jële ko fii yóbbu ko ca seen réew ya di ko teg lu nekk te teguñ ko fenn ngir lan ngir yàlla laa gëm yonte bi mooy lislaam laay jaam lislaam laay laay laay laay laay laay wéyee ñu teg ko lu méttee métti loo xam ne teguñ ko fenn su borom itam foofu la jaar ak Bamba kon nattu mooy kerkeraanub mooy kerkeraanub lambiya ku wedd na kerkaraanub awliya ne ko si ko waxe won na todi di kerkaraanub lawliya ku wedd laajal khairu lambiya kon mbok yi li moy li nga xamne mo moo tabaski li moy li nga xamne mo waral tay ñu tabaski ci yenen jotaay dañ leen leral naka lañu tabaski ban xar mo dagan ci tabaski ban xar moo daganut tabaski ndax tabaski dafa laaj gorante ndax dafa ndax dafa laaj ni sàcc wala di agresser ngir am luñ tabaski déedéet loolu daan leen ko leeral ci yeneen jotaay bu soobee suñu borom seen mbokk la woon ci yàlla si amoon Fadal Gaye ak seen émission bi di diine ak jamono ba beneen yoon incha allah ñu yaatalal leen ci yeneen ak yeneen bu soobee suñu